yàlla nag dafa dogal feebar bi am ay doomu Sénégal yu mu dal bitim réew am ci ñoo xam ni dañ ci wàññeeku ñuy jaale ci turu président Macky Sall ñooñu ñëpp seeni njaboot di leen jottali aussi njaalu gouvernement bi ak njaalu ministère des affaires étrangères amoon nañu nag aada koo xam ni danga nga wàññeekoo bitim réew moo xam say mbokk dañ lay andi moo xam ambassade bi da lay dimbali moo xam ministère bi da lay dimbali mais ñun mën nañu seede ni ñu bari ci ñoom président Macky Sall ci boppam jàppale na leen ndax ñu mën a delloo si seen i néew fii ci Sénégal mais fii jamono bi toll tey recommandation yi nga xam ne jot nañ ko ci min OMS waxtaan yi nga xam ne am nañ ko ak autorité yi nga xam ni ñoom ñoo yor réew yooyu ak conseil yi nga xam ni sunu autorité yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo ci wàllu santé wax nañ ñu ko fi mu nekk nii ñooñu munuñu leen indi Sénégal li ñuy ñaan seeni mbokk mooy nañ leen denc fi nga xam ni foofu la yàlla jëlee seen bakkan dinañ nag jox nañu ay instructions pour que sunu ambassades yi ak sunu consulat ñu jàppale ñooñu pour ku ci nekk diine bi nga bokk wala aada bi nga nekk ñu fexe ba ñu denc la ci anam yu dëppook yooyu moo tax président joxe na ndigal aussi ñun wax nañu sunu consulat yi dëkk yi nga xam ne dafa jar ñu jënd suuf si ñu leen di denc ba ñu mën fa tëdd kooku it incha allah dinañ ko def ci nu mu gën a gaawee alal ji njëkk yóbbante daanaka loolu lay jariñ maintenant am na yeneen sénégalais yoo xam ni yàlla mën naa dogal ñu wàññeeku ci yeneen feebar bu dul feebar bii nga xam ni tey jii moom moo sonal àdduna bi yëpp ñooñu. dinañu waxtaan ak docteur yi nga xam ni ñoom ñoo constaté seen décès képp koo xam ni jàpp nañ ni du feebar boobu moo la yóbbu bu say mbokk yittewoo ñu denc la fi nga wàññee mën nañ la ci jàppali waaye bu sa mbokk yi jàppe ni da nga war a ñibbisi te ñun ñu xam ni du feebar boobu moom moo tax nga wàññeeku lépp loo xam ni gouvernement bi daan na ko ci def wala gouvernement bi mën na ko dinañ ko fexe ba ñooñu mën a ñibbisi ñuy dool dellu di jaale mbokk ñooñu di mettitlu di naqarlu la nga xam ni dal na leen ndax ku sañoon bu sa mbokk wàññee ko nga defal ko la nga xam ni moom la la mujjee ñaan balaa muy génn àdduna wala nga defal ko yow li nga xam ni moom moo gën a dal sa xel mooy indi ko ci réew mi ndax nga mën fa dem di ko ziyaare waaye di ni àdduna bi bindoo tey ak danger yi nga xam ni am nañ ko risques yi nga xam ni am na ci àdduna bi ñu dem ba àdduna bi dem beeg dikk bi dañ ko taxawal ñu dem ba ci àdduna bi boo amee sa doom mbaa nga am sa way jur mu nekk ci bitim réew mënoo ci moom dara mënoo ko jëli mënoo ko fekki donte da nga ko mën bu àdduna demee ba tollu foofu nañu nangu ni la àdduna bi laaj ndax réew mi yëpp mën a mucc loolu rek la gouvernement bi mën a def ci loolu la gouvernement bi taxaw moo tax ñuy ñaan sunu mbokk yooyu donte xam nañ ni metti na parce que ñaari naqar la mooy naqaru am ko wàññeeku ak naqaru la nga bëgg mënoo ko def nañu xam ne gouvernement bi mi ngi seen wet lépp luy ndimbal ñu mën ko dinañ ko def ci autorité diplomatique yooyu pour ñu mën leen denc denc bi gën a rafet